m'appelle Abdou Kanboj. Je suis le coordinateur régional de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Nous venons donc de boucler une activité qui s'inscrivait dans le cadre des activités de la COSIDEP, qui était donc notre vacances pour l'école. Aujourd'hui, la dernière activité consistait à faire une caravane autour des artères de la ville où on devait sensibiliser la communauté sur la grande opération que nous avons donné main Ubbi Tey Jàng Tey. Ubbi Tey a été donc un concept un concept que nous avons lancé en pour inciter donc les populations inciter donc la communauté éducative à démarrer les cours le premier jour la rentrée. Qu'est-ce qui nous a donc amené à prendre une telle initiative? On s'est donc rendu compte qu'au Sénégal, le temps de travail, le temps qui était imparti au travail, aux enseignements apprentissages était très insuffisant par horaire défini. Donc ce quantum horaire a été agressé et aujourd'hui il tourne autour de 700 heures au lieu de, de 1200 ou 1300 heures. Raison pour laquelle donc nous avons dit qu'il faut aujourd'hui renverser cette tendance-là, amener les populations, amener les acteurs de l'éducation, amener donc la communauté éducative à inverser les tendances en amenant les enfants à faire de Ubutei, Djangutei une réalité au niveau de notre pays. non seulement au niveau de notre pays, mais au niveau de toutes les régions du Sénégal et plus particulièrement à Thiès, que nous connaissons très bien. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir d'excuses. Parce qu'une école qui a abrité des cours de vacances, une école qui a abrité des entraînements pour nos ASC, une école qui a des réunions d'ASC, une école qui n'est pas inondée, peut aujourd'hui recevoir le, les enfants le 4 octobre. Raison pour laquelle donc nous, nous avions dit, et nous le disons à qui veut l'entendre que les cours le premier, euh, le, le, le premier le 4 octobre. Parce que nous sommes dans une année assez particulière. Parce que 2000, 2019, une année charnière où on aura une élection présidentielle, où on aura des élections juin, où on Voilà donc autant de facteurs, sans compter maintenant les nombreux jours fériés, les magal, les gamous, etc. Donc voilà autant de, jours qui seront chemins qui font qu'aujourd'hui nous pensons qu'il nous faut démarrer les cours le premier jours de la rentrée. Thiès n'a pas d'excuses parce qu'à notre connaissance, il n'y a pas une école qui a été inondée. Il n'y a pas d'abri provisoire. qui fait que les cours ne peuvent pas démarrer donc ce même jour-là. Raison pour laquelle donc nous nous pensons qu'avec l'appui de la communauté, l'appui des collectivités locales, l'appui donc de toutes les volontés, l'appui de, des acteurs de l'éducation, les cours peuvent démarrer le premier jour de la rentrée. Je comme ni ma ko waxee léegi ñoo ngi pare li nga xam ne lii mooy benn caravane bu coalition. des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique doon def léegi di ko tuddee caravane bu ñuy wooyee ubbi tey jàng tey lu tax ñu koy wooyee ubbitey tey jàng tey parce que ñun ñoo ngi ko defoon depuis 2014 ba ñu ko defee la taxoon ñu def ko dañu seetlu woon ne qualité njàng mi sooxee woon na seetlu woon nañu tamit temps de travail bi nga xam ne bii waroon nañ ko am pour élèves yi temps de travail bi ñu am waroon am amul parce que bu ñu waree jàng ay mille deux cent wala mille trois cent heures tey ñoo ngi ci ay sept cent wala huit cent heures alors que ñu ne loolu dafa nekk loo xam ne jaadu na te loolu dafay feeñ ci résultats scolaires yi parce que tey boo xoolee résultats yi muy CEP muy en muy muy muy entrée en sixième muy BFM muy bac du benn résultat moo ci baax te loolu li ko waral ñun yaakaar nañu benn facteur bokk na ci mooy que temps de bi nekkul temps de boo xam ne bii doy na moo tax ñu ne donc tey. dañ koy def parce que amul tey benn raison bu tax ñun war ñu mën a réussir loolu parce que Thiès amul fi benn école boo xam ne bii à notre connaissance na amul à notre connaissance aussi benn école boo xam ne bii am na ay jafe-jafe da nga xam ne bii xale yi mënuñu fa dugg parce que tey dañ ne école boo xam ne bii abrité woon na ay cours de vacances amoon na ay réunion yoo xam ne ASC e yi fa lañ koy defee amoon na terrain boo xam ne bi ASC yi fa lañ koy fa lañ koy defee mais école boobu war na mën a fonctionner bu fekkente ne loolu mënul nekk léegi la communauté éducative dafa war a jóg rassembler wu comme un seul ñu dem defar seen école parce que école bi bu baaxee ñun la baaxal te tey suñu qualité njàng mi des na lu bari te loolu temps de travail bi tant que matul du ñu am résultats yi nga xam ne moom lañ bëgg moo tax ñun ñu réussir donc caravane bi on a fait le tour la ville pour sensibiliser donc les populations par rapport à cette action pour que ubbi tey jàng tey nekk une réalité au niveau de Thiès je vous remercie